waaw di am mbégte ak contentement rek di ñëw yéen ci émission Bantamba Foot 100 pour 100 football local comme ko Asma mun di defee rek l' avocat du football local ñu benn compétition tey nag ñi ngi ci nawetaan bi tey ñi ngi fii ci zone 3 Géejawaay mu nekk ci diggante Lakale ak Gounass muy match boo xam ne match derby la. tey boo gisee rek stade bi nga xam ni tey match bu am solo moo fi nekk match bu am tension tamit moo fi nekk comme ni ñu koy defee rek euh, sur la Bantamba TV avec l' international Asmamoun mooy résumé réaction ak ay commentaires loolu mun a ñàkk ci émission bi di wax nag tey mooy première émission ak nawetaan ñu ko ñëwee ko nag defee ko fii ci zone 3 ci Géejawaay ma ñëw nag euh, fekk fi nag benn ndaanaan un grand gardien de but ñu koy wax Manick muy gardien de but euh, Géejawaay football club wax ni rek du ñàkk tamit mu wax ju parce que moom tamit euh, mi ngi ci nawetaan bi ci nawetaan bi la jaar waaw mi ngi noonu boo ko gisee rek mi ngi nii Mbagnick ziar la. delloo ziar bu baax sëñ As. waaw di wax ne nag tey dañu gis nga ñëw jàppale si sa équipe. waaw loolu moom dëgg la moom ñun amuñu ku ay see penc. Uh-huh. ndax moom moom lépp ba dara dul dara fa lañ commencé suñuy petit âge ba ni ñu yàlla may ñu ñu. nekk un euh, grand gardien tey tey jii moom. dëgg la dëgg ñuy damay dégg penc di dégg lakkale. waaw penc ak lakkale yëpp benn la mais lakkale moo nekkoon tur bu yàgg ba mais instant yi actuellement ASC penc la moom. ah ndax gars dañoo changé waat tur bi def ko penc. noonu ah. la fa demee ñëwee. tey moom ndam rek incha eh. ndam rek. loolu ngeen ñoo dóoroon 2018 euh, quart de finale 4-0. Eh. tey loolu la ñu ñëw pour fay suñu incha allah rabi. Ah. waaw lay wax ci Bantamba TV. Bantamba TV sa kaw sa kanam rek. waaw ñu ngi gis action yu rafet yu muy liggéey fii moom. Ah. macha allah mi ngi topp championnat yi mi ngi ñu wan résultat yu baax a baax a baax. Ah. yal xeeb doole daal incha a kontaan. <laughs> jaajëf jaajëf ndaanaan nu ñuy def rek mi ngi noonu booy yaa ngi nii booy yi xam ni amuñu billet sonal nit ñi toog ci buntu bi ku ku ñëw ñu laaj la cent ñu ngi nii booy lan mooy lan mooy problème bi ngeen toog fi. ñu dugg dugg dugg. Ah. dañoo bëgg a dugg dañoo jaraaf moo doon joué ak génération foot première journée kan moo gagné. jaraaf. ñaata. deux. noppi ñaata. ah xam nga ko perte nga waaw taxawal. ku trouvé loolu rek. ok dañ lay jëndal billet. léegi dafa am xam nga dafa am deuxième division am première division. léegi dañuy ñëw Dakar Sacré Cœur ak AS Pikine ñaata ñaata la kan moo gagné. Dakar Sacré AS Pikine AS Pikine AS Pikine Pikine Pikine moo gagné. yow jeex na Pikine dañ ko dóor 4-1. acca acca acca acca. <laughs> ar nan la dellu ziar. mais dafa mel ni da ngay waajal waxtu bi. waaw waxtu bi laay waajal quoi. Ah. waaw mais macha allah gis nañ nawetaan yi fii ci géej waaye dafa am solo ah, dafa am popularité. am na popularité mais violence bi moo ko yàq quoi. Ah. waaw ba léegi booy yi génnuñu ci violence. démb rek si mujj. Ah. sànnante xeer yi fii loolu la. Ah. football bi loolu léegi loolu moo ko yàq quoi violence. mais sinon ça va quoi. bu amuloon violence moom ça va mbët. ban appel nga ciy def. appel bi may lancé. te mooy ne football dafa war a boole. warul déjeuner. dégg nga yéen seen temps bi da daan boole football bu mënul boole. xamatuma si dara. dégg nga parce que football fii ngay ñëw si tribune bi am connaissance yu bëri man fii may toog si loge bi am naa fi connaissance yu bëri am naa fi ay connaissance douanier ay gendarme ak ñëw ñëpp. kon nag football bu mënul boole man xamatuma si dara quoi. dëgg la loolu la <laughs> dëgg la ah, rek. di foraatu rek macha allah. mi ngi dox. waa bu xeex amul mu de waaye bu xeex moom day tar moom waaw. ñoom pas yombalal na leen ko waa Orcave ak ni leen di kii ni ngeen di jaay di leen jaay ay billets yu cher yooyu. non jaay ñu lu cher carte rek la 10 000 ba 3 mois ba mu ko. ah loolu baax na ah. na waaw waaw amul benn problème. kontaan nañ ci Maysa moo ko jiite. Maysa Maysa Touré. Ah. boole ñoom ñëpp ñoom Vieux Ndiaye macha allah waa zone baax nañu. Ah. waa Odekaaf. njaay mi nag yi ñun xale yee jaax nañ bàyyi xeex bi buñ ko bàyyi rek mu neex mais instant bi nii bu ñu xeexee rek njaay mi yëpp day yàqu suñu njaay mi yëpp day yàqu dëgg la bi dimbali leen ñu booy yi ah. muy muy kenn tamit ci waa lakkale ci waa penc ziar nan la delloo ñëwee ngeen doole de parce que dañu gis benn ambiance boo xam ne ku am confiance rek koy defa ah. waaw mais c'est normal xam nga ñun dañoo nekk dëkk boo xam ne dëkk football la te xale yi bëgg football mag ñi bëgg football ñu fekk ci football su loo xamante ne bu amee rek mobilisation ñun la ko su loo xam ne bu amee rek penc la waaw. waaw kontaan nañ ci yow dañuy dugg rek seen quart de penc ak Gounass. waaw penc ñaari équipe yu mag la. match soxla nag mais du derby quoi am na ne bu dee penc ci wàllu jeu moo ko ëpp jeu fukki junni yoon doole yamul quoi. doole yamul waaw. mais dégg nga nee na doole yamul mais foo teg loolu doole yamul. waaw ah, parce que depuis le début ñun dañoo démarré démarré lentement ak sûrement ñëw am ay renfort yoo xam ne ñëw nañu seen licence parewul woon ñenn ñi parewuñu woon physiquement biñ ñëwee deuxième match troisième match gars yi gis nañ ne équipe baa ngi te loolu moo am solo. loolu ci kanam lañ koy xam. incha allah. ñooñu def na xale yi nga xam ne dañoo yàq des fois njaay mi mooy violence bi. démb kay suñu ndox mi yëpp a yàqu moom wax dëgg yàlla. billaay jaay ñu dara démb suñu ndox mi yëpp la xale yi dëgg. mais amul problème du ñu teree ñëw. waaw macha maa ngi laajte boobu ba léegi nag ñu ngi naan zone bi maanaam yéen jaaykat yi dañ leen ko yombalal. jox nañ leen benn maanaam da di jënd carte 10 000. 3 mois ngeen jaay dootu leen jënd ticket loolu rafet waaw zone bi moom loolu neex na ndax ñu ngi sant président yëpp ak di sant Maysa Touré mi nga xam ne tey moo dooleel xale yi jigéen ñi pour ñu ñëw jaay fii tey Maysa Touré bu dara xewee fii moom mooy dem si président zone bi ne leen jigéen ñi dañuy jaay mais nañu dimbale ngir yàlla ñun dañuy jaay defuñu dara lu dul jaay supporters yi mënuñu leen a téye kon dañuy ñaan yàlla rek waa zone ñu wax ak policiers yi pour ñun ñëpp ñu nekk benn xëy na nawetaan foo kase la bu jeexee jeex na man yéen laay wër na kontaan yow a kontaan. jaaji ziar nan la. sant naa la bu baax. noo leen ñëwee tey. tey de ñëw ak ndam ak victoire rek. Hmm. ñëw ko teg neex yàlla. Hmm. bu neexee yàlla suñu borom. kii dama ko tàggoo moom léegi. Hmm. ñoom wax ñu ma lool de. lan lan la wax. Ah, nee na ma day yomb ci ñoom tey. déggoo lu ma la wax bu arbitre ne par di nga xam ne stade bi pencee ko moom brésilien yi. billaahi. mais mais foo teg ca confiance bi ak li nga xam ne di ko yombal marché bi ba mu yomb nii. entraîné nañ. am nañ équipe bal bi day daw c'est le meilleur gagne ah. te gëm naa ne ñun ñooy gagné ah. ay wax la nii rek. Ah. ba ci kanam mas wala mosoo ñëw mas penc. la première fois tey mooy première émission sax Bantamba foot spécial ci nawetam. déggoo lu ma la wax dama laajte waat nga laajte kan mooy Géé penc dëkk bi fu ne la ñu jógee di ñëw tey di nga dégg dëgg. stade bi léegi mu yëngu barki yàlla. acca acca course Aboakry ziar nan la. waa ñu ngi lay delloo ziar Amaas ñu ngi lay. wax ni rek tey am ngeen match bu am solo nan ñëwee tey. waaw effectivement am nañu match bu am solo nag match bu am solo trop sax. parce que déjà adversaire bi ñu joué moom mooy favori poule bi quoi mooy favori peut-être ci zone bi cette si parce que il a fait une très belle prestation ci euh, kii bi nii ci tournoi bi voilà donc ñun génne nañu en troisième position bon ñu ñoo ñëw comme outsider mais nag football moom yaa ma ko gën a xam voilà parce que football moom liggéey la rek ak ñafe voilà donc préparé nañ lu ñu war a préparé def nañu lépp li nga xam ne war nañ ko def wala ñëw rek pour jouer match bi à cent pour cent voilà waaw loolu la nañ ci yow. waaw merci beaucoup merci Asma Mou. ziar nañ sant. ça va na nga waar. sant yàlla baax sant ziar nañ la. nga loo ziar. di wax ni tey nag match bi nag moom dama jot léegi fële jaaji. Mhm. mu ne ma match bi day yomb ci ñoom tey. a ah, waaw mais mun na nekk munu yomb ci ñoom ndax mu dool nii ah gunaat du yomb de. Hmm. ah li ma lay wax loolu la de du yomb de. dëgg la nag yàlla mooy dogal yàlla mooy may ndam. Hmm. dañ koy ñaan yàlla yàlla may ñu ndam bu sedd guy tey benn coow bu mu ci am. loolu la ñuy ñaan yàlla quoi benn coow bu ñu am duñ ko dee supporter du ko dee supporter am ndax ku ci nekk mën nga tey ji am nga opportunité gagné ko mais ñun suñu tool nii. Ah. dañoo soxla de. dañoo soxla wallaay dañoo soxla. Ah, parce que dama gis ñu ne ñoom ñooy favori yéen ay outsider. ñoom ñooy favori ñoom ñooy dama koy d'accord ñooy favori. waaw mais tey am ne war na mën a gagné tey euh, penc. non waxuma ko dong mais dóor ko loo xamante ne moom dootul ñëwaat dootul ñëwaat sax nawetaan. Ah. am nañ lu mel noonu. waaw. jeex na kon dama lay bàyyi nii parce que. ñu ngi ñaan yàlla tey yàlla na ci jàmm nekk yàlla na fi yàlla def jàmm. Uh-huh. équipe bi Gunaas yàlla na ko yàlla may ndam bu sedd guy ñu ñibbi ak jàmm ak salaam ah. kenn bu mu ci am problème incha allah. amiin amiin yàlla na ko yàlla defal ñëpp. ca comme ni ñu koy waxee rek macha allah zone 3 chapeau la ñuy wax ñu ngi taxaw nag le président zone 3 bi ñu koy wax xalifa Niang muy nit ku baax nit koo xam ne macha allah gis nañ chaque année rek muy innové ci zone 3 gis ngeen tey comme ci reportage bi comme ni ñu ko waxee rek gis nga ni nga xamee ni muy jaaykat yi muy xale yi maanaam remerciement yi nga xam ni ñu koy def. zone 3 xalifa ziar nañ la. maa ziar. waaw di wax ni rek gis nañ macha allah nga dégg tamit li nga xam ne rek innovation yi nga xam ne chaque anne rek yaa ngi koy def ci zone bi mbégte la rek. ñuy gis un bon dirigeant un sportif ki nga xam ni bëgg na chaque jour rek nawetaan bi malgré dina am na yu ñuul yi ci nekk mais malgré rek dañuy gis chaque année ngay def innovation. waaw li nga wax am na solo di la remercier de passage waaw di wax ni rek. peut être man maa ne ci kanam rek mais soo xoolee liggéey bi équipe la quoi waaw zone 3 bi yëpp la comité directeur bi yëpp soo gisee organisation jaar yoon ñëpp a jàpp comité directeur yëpp même ODCAV Guédiawaye yëpp a si jàpp moo tax nga gisul mel nii di ñaan yàlla rek comme lu ma doon wax rek mu am ci fair play am ci sportivité ku nekk ñibbi si jàmm ak salaam. voilà. ban solution lañ mën a am ci loolu parce que dama gis chaque jour le mot fair play ci capitaine équipe yi dem nañ ci jour yi chaque jour boo gisee ñi ngi ñaan naan na sedd na am fair play que le meilleur gagne. ban solution ngeen war a mën a am parce que am na lu ñu loolu mooy kon violence la. waaw loolu moom kenn du ko bañ. violence ak nawetaan léegi dafa gën a yokk. donc lépp lu ñu mën a def pour mu wàññeeku dañ koy def mu commencé si d'abord organisation bi. soo xoolee organisation beeg service d'ordre bi nu mu mel nga xam ni jàpp nañ ci mais leneen li nag mooy sensibilisation dirigeant yi ñoom ñoo war a sensibiliser. ba mu am solo voilà voilà. waaw ñuy wax rek comme maa ngi koy wax rek macha allah ambiance bi maa ngi koy signaler sax sama waa ji waaw di ko wax noonu waaw pour mu jëlaale ko mais day day da ciy da ciy am solo parce que rek dañuy bëgg rek chaque jour rek. maanaam liggéey bi ngeen di def ak réussite bi ngeen xam am ngeen ko ren ci nawetaan yi ñu ngi ci quart de finale yi mais xam naa ni c'est c'est tôt ñuy wax sax bilan. wala kii rek mais ñàkkul tamit gis nga ci remarqué ngeen ci ay manquement waaw du manquement yi daal lu ci ëpp euh, lu ñuy wax mooy côté violence bi quoi moom moo dara yàq nawetaan bi violence bi parce que ñun en tant que dirigeant nawetaan lépp lu ñu mën ñu koy def mais dafa fekk loo xam ni daanaka mën naa Sénégal bi yëpp la ci ci pàcc yëpp la quoi donc ñun lépp lu ñu mën a def nañ ko def pour prévenir prévention bi nag mooy mu commencé sensibilisation dirigeant yi taxaw taxawaayu dirigeant da ci am solo su dirigeant su toogee si place am mu mat sëkk su boobaa dina mën a wax ak supporter am ba supporter yi moytu violence bi voilà. kontaan nañ ci yow xam naa dinañ def beneen émission spéciale rek après la finale. waaw di la def appel nag di la tàllal loxo. final bi. bu nekkee rek bëgg ngeen ñëw ñu def ko sur la télévision Bantamba TV bu ñu ko mënee def direct ñu xool nan lañ ci mën a àndee def ko direct ci Canal Plus ci TNT 9 ak ci chaîne YouTube yi des na ci yéen taalal nañ leen loxo pour ñu ànd liggéey dina am solo lool lool d'autant plus que ah. ODCAV ODCAV ñoom ñoo porté combat boobu waaw vice président chargé de euh, vice-président chargé de la communication moom la ñuy wax Dame Fall moom mi ngi fi dañ koy gis moom lépp loo xam ne dañ koy def pour mu yemm rek final bi gën a affaire ngeen gën ko wane diaspora bi gis ko dañ ciy kontaan. voilà lool la quoi waaw.